auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala man laa nabiya ba'da mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi siyaar ñëpp di siyaar waa télé bi ah, di am solo bi nga xam ne ñoo ngi koy ànd ak ñoom ah, démb ñëwoon nañ ci ñaareelu guddeel gi tey ñu ñëw ci ñetteelu guddi gi ci téere bu tedd bii nga xam ni sëriñ Juhaybu bu Mbàkke ibnu Xadimal Mustafa moo ko Euh, bind baaxe ko mboolem jullit ñëpp ah guddi ñetteel ga képp ku ci julli juróom-benn raaka raaka bu ci ne mu jàng ci fatiha inna ansalnaahu ak kafiruna lu ci ne ñeenti yoon inna ansalnaahu ñeenti yoon ginnaaw fatiha ak xul yaa ayyuhal moom itam ñeenti yoon dana mel ni ku goreel junni jaam sëñ bi nee na saa boo ko jullee ba sëlmal juróom-benn raaka yi mooy inaan sal nahu ak kaafirona ak lu ci nekk ñeenti yoon mu nekk juróom-benn raaka sëñ bi nee na mel na mel na ni ku goreel junni jaam ak ku jox ndogu junni ñu woor xam nga ngoon jot nga jox ko lum loolu ci tiyaaba rek ko xam suñu borom la bindal eh, tiyaaba joo xam ne mel na ni jox nga ndogu junni jaam junni jaam ñoo xam dana woor ba pare mel na ni tamit ku woddu junni ñu rafle junni ñu rafle ba pare mel na ni tamit nga fekk junni ñu xiif nga jox leen ñu lekk ba seen biir fees te ku ne xam ne reggal benn biir biir bu xiif nga regal ko moo gën junni jumaa des na ko bindal itam tuyaaba ju toll ni limu njanaaw yëpp njanaaw mooy lépp luy naaw lépp luy naaw rek loolu mooy njanaaw moo naa picc yeeg ak lépp luy naaw rek moom la naan njanaaw njanaaw dafa am njanaaw njanaaw am ndiñ miint ndiñ mint mooy lu am ñeent tànk rek tey dox ñaa ko rabu ali ay gaynde rek yooyu noonu ah des na ko des na ko ca defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax nee na julli juróom-benn eh, rakk yi des na ko bindal li ñuy defal jaam yàlla yi gën a baax yi gën a baax ci jaam yàlla yi li ñu leen di defal yow yàlla loolu la lay defal ba tey des na ko bindal tuyaaba yi ñi dee ci xare ñi dee ci xare mooy ñu àndoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam di xare xare Badar xare Uhud niin yooyu yëpp nga xam ne ñoom buñ faatoo noonu la leen di robe ndax seen deret day mel ni miski foofa da foor kenn du leen sang ñoom kenn du leen sang dañ leen di suul noonu rek ak seen deret des na ko bindal tuyaaba ji ñu dee ci jihaad des na te des na te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te deesu ko fitnaal ci bàmmeelam te fitnay bàmmeel képp ku ci yàlla musal rek texe nga ba pare deesu ko ca mbugal tamit kon deesu ko fitnaal ci bàmmeelam deesu ko mbugal itam kon loolu mooy ngëneel yi nga xam ne moom leen naafile yi lamboo naafile yi comme ni ko waxee léegi moom tam juróom benn rakkaa la faatiha nga jàng kaafiroona inansal naa ak kaafiroona lu ci nekk e, ñeenti yoon kon loolu mooy ñetteelu guddi gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu